ñu ñëwaat ci Sénégal fii euh, président bi nga xamante ne mooy euh, Bira Sène moo ñëw remplacer ki nga xamante ne mooy président euh, Alioune Sarr bi Alioune Sarr demee Bira Sène ñëw demu Alioune Sarr nan nga ko gisee ak ñëw Bira Sène ci làmb. waaw demu Alioune Sarr ni ma ko gisee maa ngi koy nuyu bu baax a baax sunu papa jooju nga xam ne yoon na làmb 26 ans. Mm. liggéey fi liggéey bu am solo di ko ñaanal jàmm xewal sutura yàlla sàmm ko sàmm njabootam. lim fi bàyyi tamit yàlla bu mu réer. nag noonu la kii def fiy jógee rek keneen ñëw. mooy li may wax rek suñ ñëwoon sangoor bi mu fi nekkee buñ ñëwoon Senghor bu mu fi jógee ah tey Abdou Diouf fi nekk ba def dara Abdou Diouf bi fi nekkee buñ ñëwoon Ablaye Wade bu ñëw. Ablaye Wade du fi ñëw ba créé fi ay autoroute Ablaye bi mu fi nekkee bu ñu ñëwoon bu mu ñëw na fi Ablaye toog Macky du fi ñëw ba créé fi ay TER ay BRT ay BRT xam nga. adduna noonu la ku ci nekk da ngay ñëw yokk. moo tax Père alin Sarr ñu ngi koy félicité ci 26 ans yu mu ko yor ba dem di félicité tamit Bira Sène mi nga xam ne moom la ministre bi woolu dénk ko làmb ji. di ko ñaanal yan bi oyof ci kawam. ndax dénk nañ ko lu bari coow. denk nañ ko lu bari ay wax dénk nañ ko lu bari jafe-jafe. Mm-hmm. léegi nag loolu dañuy ñaan yàlla mi nga xam ne moo man di oyofal lu mu lu mu lu mu la oyofal nga attan ko yàlla na ko oyofal yan bi ba mu attan ko jëlee làmb ji fu mu nekkoon yóbbu ko ci beneen level ndax àdduna nag jiri chaque jour day dox day avancé. boo xoolee téléphone yi nga doon yor ak léegi yi nga yor bokkul bu njëkk télécentre la woon léegi ñu mujj gi ñu dem si téléphone télécentre fii li mujj gi ñëw indi ay Nokia gis nga tey. ay ay fan sax année ñu génnee benn bu bees mise à jour yi ñëwaat. làmb ji tamit noonu la war di doxee. Mm-hmm. Mm-hmm. mu doon loo xamante ni bi Bira Sène toogee ba tey am na ci ñoo xamante ni ci làmb ñu ngi commencé indi ñool-ñool euh, tooginu Bira Sène noo ko gisee parce que woo na yéen promoteurs yëpp woo na euh, amateurs yi euh, dalal na responsable écrit yi tey ku ci nekk am na loo xamante ne ñoo na bi ñu defee membre membre CNG bi bureau bi bokk na ci yéen waa làmb yéen ci ëpp parce que képp koo xamante ne ŋànkoon nga ci làmb dara rek yaa ngi ci surtout promoteur yi. waaw Bira Sène to tolloogul fu ñu koy critiquer. Hmm. defagul lu tax ñu koy critiquer. ñëw na ci làmb ji ni mu ñëwee. wax dëgg yàlla képp ku nekk ci làmb war nga ko féliciter. ñëpp di laaj ñëpp seen xalaat. Hmm. ñëw na tamit wàññi. li fi nekkoon mu oyofal ko ñiñ fi daanoon yëpp mu baal leen kon kooku ñëw na ubbil boppam waa làmb ànd ak ñoom joxante ak ñoom loxo pour liggéey léegi nag li si des mooy waa làmb ñoo ko war a dooleel gunge ko pour mu mën a yóbbu làmbu ji fu mu ko bëgg a yóbbu amaana nag promoteurs yi bëri nañ ci làmb ji wala làmb ji bëri nañ nit ñi bëri nañ ci jili sa question boobu dama ci kontaan. 52 moom. waaw question boobu question bu ma neex la. Hmm. question bu ma boo xam ne nii am naa ci ay am naa ci ay xalaat te dinaa ko dinaa la ko jox. 52 membres yi ñu jël pour bureau CNC yaakaar naa man amul importance. mel ni état réew mi sax kanaa ministre yeeg matuñu 52 ministres. yaa ngi dégg boo jëlee cinquante 52 membres ci benn kuréel. kuréel gi au lieu que mu dox nu mu war a doxee man li ma ci gis mooy mun na gàllankoor kuréel gi. ndax 52 boo leen nominé ci benn affaire kenn ku ci nekk mun na jàpp ne man la man la ku nekk boo ne man la dañ maa fal mënuloo ma dara wala lii rek indi nga beneen problème. Hmm. yaa ngi dégg ndax boo amoon tëggoon tey lamb 52 personnes yi ku ci nekk ñëw stade yor kartam buñ buñ toog mu fees man li ma gis du 52 10 personnes yu am qualité. Hmm. volontaire moo gën 52 yoo xam ne volontaire wuñ amuñu qualité. Hmm. ndax tey cinquante 52 yi ngay dégg day commencé chaque jour kenn bàyyi di rocceeku di rocceeku ba mu jeex kon affaire bi du foofu départ bi nga xool équipe bu dëgër bu wóor boo wóolu bu mën a liggéey làmb ñu teg leen fi moo ëpp sens. bi nekk nii am na ci ñoo xam ne wóolu wóolu. non du problème mu wóolu volontaire joxe sa bopp li tax ñu teg la fa nga def ko ak man membre CNC laa rek di ko doxee bu dafa utee mm-hmm. man tey lu ma gis ñaata promoteur ñoo fa nekk amul sens. loolu loolu loolu amul sens pour lamb amul sens pour lamb man gëm-gëm bi ma am mooy promoteurs yi nañ dem tëggi lamb ménagères yi dem signé ji combat mbër yi dem bëree ji entraîneur yi dem entraîner seen i mbër lamb ji ñu xool ñu ñu am si ñoom yaakaar ñu jox leen ko ñu doxal ko ñu ñu am si ñoom yaakaar nag mbir nag ku bokk ci gétt gi naan ci meew mi benn nen bu ko mbooloo bokkee duñ ko omelette dañ koy mayonnaise ku si nekk jël sa wàll. promoteur yëpp nañ taxaw képp ku am licence promoteur simple nga promoteur frappe nga ñëpp daje. mais nañ xool ñun ku ñu wóolu bu fekkee élection lañ koy sànni wala carte ku gagné ku ëpp ñu ñu fal ne moom la ñu wóolu mu dem représenter promoteur yi sincère. mu nekk benn mu nekk benn promoteur yëpp. moom moo ñuy représenter sincère. mbër yi def noonu amateur yi def noonu entraîneur yi def noonu ménager yi def noonu. ku nekk di nga fa toogal kuréel googu pour intérêt kuréel googu su ñuy nominé dara wala ñu war a def dara nga taxaw défendre ñooñu waaye jël sans promoteur dugal leen ci benn kuréel amul sens. xëyroo ngaay lañ fay nekkee ñii di jàpp fii nii ñu jàpp fii te ban affaire bi ni ma ko jàngatee ndax ñaari kuréelu promoteur moo fi nekk. kuréel gu ci nekk nga jël ci trois personnes dugal CNG bu ñu demee réunion ñi xëcc fii ñi fii loolu du doxal. benn promoteur moo war a représenter promoteur yi CNG benn ménager représenter ménager yi CNG benn entraîneur représenter entraîneur yi CNG. bëri la barkelee ko gën. mu nekk équipe boo xam ne bu suudee la ku ci nekk xam cër bi nga moom ak lan mooy sa àq ak sa yelleef. nga doxal ko ñëpp gis seen bopp noonu la affaire bi war a demee. waaye bañ kenn ku nekk nga mer ñu jël CNG bi def sa cent cinquante personnes xaw ma cinquante deux personnes yoo xam ne état sax doxewul noonu loolu moom wax rafetlu ma ko. am na solo am na solo boo xoolee li muy wax yëpp da ngay boo dégloo rek di nga xam ne li muy wax njokkute la ci làmb moom Jamaïcain